مرامي عند الله أويس المدار بجاه وكل مسلم ليس يفسد من ارتاب في كونه بيدي الأمداد ना कमा से mënoo sant kàddu tàmbalee jëriñ suñu demee ba weer wi dëgg ma laa déwén yàlla nañu saa borom fekkeloo te nu tal ko te nu bokk ca ña nga xamante ni euh, dañuy am kattan nga am taxawaay bi am pas-pas bu ko yéenewaat di fi déwén ca yeggaatee nu daaw nga des na ci ñun ba léegi kon gu ren gi dañu dolli ko rafetal toogaay Touba la ñaan ndax la daan wax ñun nag daaru daaru baax mënu doon tànn ci góor yàlla sëñ Mor ñuy si ñëpp waaw kon nag ginnaaw am nañ loolu nañ santaat yàlla bu baax te te cëral mag ah, li ñu doon tegu teguñ seen bopp yàllaa leen ko waaw li ci des nag moom ñu mujjee ko mooy ma mënee di gën di waxtu bi rek dañ koy bàyyi xel at mu nekk tudd doom ñaari idées muy tabaski Daaru Salaam bi kenn ku nekk sama teraanga ñëw ci teraanga nag ba ma ko defee ba pare daa ko yéene sëñ Muudu man ko ci sax bopp defal ndax sëñ Muudu rek tax lu ma am fii ak toogaay bi lu mu mën a mel lu mu neex neex taalibe yi lu ma topp topp sëñ Muudu doo ma tax bu du woon suñ Muudu du ma doon dara loolu laay gën a feddaliwaat sama rakk yi nag li ñuy tëj ci ñoom du ma sa am ba yomal xeex sëñ Muudu damaa teg seen kanam xuloo ma xeexuma wérantewu ma dàgg seen kaw sama yoron ginar toglu ko bam ñor buma gisu sama yaa dama ko leen wax naa ko seen xarit bi nee naa ko lu ma nar sama rakk yi teewul suur naa ko lu ma amit sama loxo waaye man taalibe rek laa Sëñ Tuubaa ne kuy gedd taalibe da ngaa xamul li def ci ñoom taalibe yi mun dem bàyyi sëriñ si sëriñ si mun dem bàyyi taalibe yi li Italie dafa am benn taalibe boo xam daa ñëw ci sëñ Moodu bu jang jàng daa toog nga toog am taalibu bu toog nekkul war nga ñaanal si jiw ndax dafay ñëw ni yéen ñëpp sawar a nekk sëñ ne ko lu ngeen ko def ba mu sawar mu ne ko daa ñëw fii am lu mu dajale loola ñu dajale dajale mun ta mu ne bu matu sawar a ngeen jëm sëñ Mourou Boussa yëg ne ko ba leen di yàq ba leen suñ ko du gëm dem sawar la bëgg rek moom ngeen def bu ñu yaakaar ne yi ay mbaam lañ ay nawle lañ soxna am nawle la am nawle man ay nawle laa leen def defuma leen leneen ànd bi nag yàlla na ko yàlla yàggal asalaamaaleykum wa rahmatulah Tàllal leen mais loolu baax kii loolu loolu nee na sa waaye loolu bu wax dara du ko laaj bàyyi bu baax macha allah lii yii da du yooyu eh bin say la wax yow

ah ay may may jàpp na ci yàlla julli si. baaxul lay siyaare caabu caabu baaxul lay siyaare baax siyaare bu génn sama jaal bi de bul wax nga ba nga ba gisoo affaire sexe sexe bi ma def xalaat bi daa war a sool xool ma jaaree rek nga bëgg a wane ci madame Sy bi dina jox saa waa ji mi yëkkati xel kii bismillah na commencé Malick daa ngi jël ba léegi wala waaye nee na nga ñëw jaar xel de bu gàtt waaw kay jox ko micro bi yow Saliou asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokki daaru baaxum sëñ Abdou Lahad. waaw si aar la génn jox bi garab bi. yéen a ko bi garab ban la. lii nag mooy daaru baaxum bii koo koy taal. commencé commencé mën nañu ànd def. dàq naa ni nag. Ah? asalaamaaleykum wa rahmatulah. Daaru Baaxum TV. Ah, daaru Baaxum TV am na ci portable yi. YouTube waaw YouTube. moo dugg YouTube gis ko jullikaay bi nga xam ne ni moom la ñu Seex Mor Faasa Baaxum tànnal mboolem kilifa kilifa yu baax yëpp daje fi di doom yi di sit yi di taalibe yi di ñu sanca dëkk bi ñëpp ñu ngi nii tey tey bu ñu nee ngembe ni mbaaxumeen ni tëgg ni mbooleem ñeneen ñi xam sanc nañ ci dëkk bi rek mën naa ne yóbbaale leen yëpp barab baa ngi nii nag ñu ngi ñaan képp koo xam ne seetaan nga vidéo bi yàlla yàlla fas sa aajo ci barkab dëkk bi barke Seex Xaadim jërëjëf kon ñu toog sëñ bi mu barkeelu sëñ Xaadim kii mooy sëñ xaadim Tambadou Toora kii mooy taalifal sëñ Mor Fassal taalif yi sedd sunu xol nun waa Daaru Baaxu ku ko xamul rek te dégg ko mi ngi nii ku ko déggit ñu ñaan suñu borom yàlla defal la barke ci barke lii muy bëgg a yëkkati bisimilah sëñ xaadim ma barkeel du waay di ñaan ci barkeb Seex Faasa baax boo ko amul ci yow la xentul sa ndab sellal ko dellu si yow lu way di ñaan ci barké cheikh Mor fa sa bax boko amul ci yow la xentul sa ndab selal ko delu ci yow ndax geejje ngi no ca sobo rek ngay mëna mel ku sobu ci geejju fa sa bax do mëna waw waw ak dëgër ñaaxu mak fi da dindi te nyari ñaari bor fo lamb fekk mu ñaw sin tora pastawa keur Ousmane ba kewre ñu ngeer daaru ngeer càlle réew maa ngi ne ñàpp ci yow siin pastawa kër usmaan ba kew re njujuf ngeer daaru ngeer càlle réew maa ngi ne ñàpp ci yow nun noo ngi ñaan ci barke faasa baax fan wi gudd te wér ci barke seex góor a baax na ñëpp yàgg te wér seex moodu fëri seex abdul ahad mboolem ku nekk daaru baax yal na yàlla wéral ci barke sa yuxu góor a baax ridan wa rahmatan minallahi bari jakarolatullah bi kitaab yi laa doxalu janna jawr furxaan rabbiyal mooy malk na sew sax sax lam ax su dundaaw saatu dina ko xam ne dafa sax dina ko adi sax daal bu fay wa rafa xani dina ko jëwali sax sax ci ko soxna ak daal bu sax باب الله كرام الكرام وبقية الإسراء الكرام لا يقعد الله ما لم يكن ولا يكن أبدا لسوء أسوأ daan yàlla ala laahi bi laa doxal moom di taxu bala yàlla yàlla mosi say bala yàlla na saf-saf waaw ci seex góor ak seex mar faas barke suñ fàllu barke suñ taxaa yàlla fi yàgg suñ taxaa yàlla fi yàgg te rooy gàcce ngaalaam waaw la ilaha illallah Chebra fa la ilaha illallah wala ilaha illallah yàlla yàgg baax la ilaha illallah la la borom daaru maam Cheikh Anta la ilaha illa la barke si Muntaxa barke Cheikh Mor waaw lépp kii nag mooy Ibra Dieng mooy suñu mag ju baax ji nekk daaru doon pousse rek te doon ruglañ set fépp foo xam bi ni maanaam béréb am na fa rek moom ñaw rek la fi nekke mooy barkeem ngeen mbég daaru baaxum yàlla na ci am ak i rakkam wuuf na ñëpp wuuf na sëriñ si uuf na rakk yi uuf na njaboot gi uuf na mboolem ñi fi nekk kon ñu jox sëñ Moussa Mbaye kàddu gi ñu dog nu koo jël baax a baax moom si Ibrahima mi ngi nii asalaamaaleykum maanaam ah, mm, am li poussé rek bu ne ko far mag ko far taala maanaam barab bii ñu doon jullee suñ Mor Fass ba am sax ci waaju baax baax mu ne maanaam fii nii ku xaman li fi nekk dina jëral sax nga jiw pour ndax dañuy doon sàkk xam-xam da ngay dem ba siin waaye nee na xamal li nekk ci barab bii naam dina la jaral nga ñëw ba ci barab bii sàkk ndax li fi nekk ci xiiwal ak tedd nga ak ak euh, ak lu baax koo xamal rek di nga ñëw dina jaral ñëw ci néew yi sëñ Mor Fass bu baax ñu sàkk si yàlla na fi daw yàlla defal xiwal gu daj kap barke Seydou Khadim jërëjëf jërëjëf sëñ Mamadou yàlla yàlla yàlla defal la jàmm baax a baax amiin amiin amiin baax na kon jërëjëf kon sëñ El Hadj li ci des mën nañu ko yeggalee ca dëkk ba njëkk dox ñu dem nan lay jaare ah waaw nii la ñuy jaar bisimilah kaay dem day yegg. waaw a te mën nañu dem ba yegg luñ ci mën a jël rek. yow téel téel micro bi rek. ndax biir gars yi. waaw am ñoo xam ne ñu ci bari. waaw daa leen mën a parasan. waaw man man leen a xam. wala ñi nga xam ñoo koy seetaan. Ah. man koo xàmmee ndax yow sëñ Alaaji ah. da ngaa def loo xam te ni bii ni fi ne lu am solo la ndax suñu dëkk bii ngay gis ah. dafa doon loo xam ne ni ku nu gis ñu nii dox ci am ñax biirum ñax ah. ci la ñuy jéggat ndawag lu baax ndax lépp nag lu baax rek hmm. li nu koy waral nag ak li ko sabab mooy ah. mboolem kilifa yi nga xam ne nañ ko ah. dara lu dul lislaam bugguñu dara lu dul daaru salaam waaw lépp loo xam ne ni bàyyi nañ ko wala am nañ ko wala taalibe jox nañ leen ko yóbbu nañ ko daaru salaam boo déwén bii ni maanaam ay tabax lañ fi bëgg mbaa ab tëli lañ fi bëgg mbaa adduna lañ fi bëgg kon ñun bala ñoo jut lépp loo xam ñu ngi koy wut ci adduna ñun daañ ko fekk ci dëkk bi <laughs> waaye mboolem ñi nga xam ñoo xam ci dëkk bii di ay mag ak taalibe ak yóbbu liggéey jox sëriñ gaawaan liggéey yóbbu daaru salaam liggéey mu dem ci lislaam lépp rek ñoom moo leen ñoroon waaw waaye kon nag nun tey ji nga xam yàlla daa dogal dañu fee des te dañu ni maanaam nit wax dëgg yàlla bëgg na loo xam ne tey jii bëgg na lislaam bëgg nañ diine bëgg na nit lépp loo xam mag ñi bëgg nañ ko waaye bëgg na nañu jamono ndax fi mu dañu ni diine ak jamono moo am diine ak jamono ginnaaw moo am danoo bëgg ñu saa yàlla gën gënnoo dimbali te gënnoo taxaw dëkk bii ak barkab dëkk bi saa borom yàlla dimbali mboolem ku fi yeewoo muy góor ak jigéen mag ak ndaw yoon wii nga xam ne nag di mooy yoonu Mbaba Garaas ba Ngaay ñu ngi koy yóbbante waale Macky ak njëriñ nga xam ñooy ŋànk réew mii bëgg nañ ku nu ci dimbali ngir yàlla ki ko tàmbalee Mbaba Garaas ba Bamba it bëgg nañ ku nu ci dimbali ndax dañ fi jaar di dem Touba ka ñëw te suñu bokk ñu nga Touba suñu yaakaar a ngi Touba Touba kër ngaan na Touba Toul bëgg ku nu ci dimbali ngir yàlla ndax bu nit joge fe nga xamni moy mooy tubaatul war dem keur ngànn ah. wala jall touba ñu dëkk fofu it day doon yoon wu juba juba jub bëgg nañ ko jibil ngir yalla ah. fépp fo xamni suñu kaddu yegg na fa nga bëgg ngeen yeggaleel bu fu suñu kaddu mënut a yegg nga bëgg ngeen yeggaleel ba ci kilifa yu mag ya fa ñu nekk ñu man ko dégg waaw yow mi nga xamni yow yalla dogal na tay Macky Sall yow yaay borom réew mi bëgg nañ li nga xamni bi ni manam moy li nga xamni ñi fi jëkk na jaar te yàlla suñu borom mission boobu ñoom doxuñu ko yow bëgg nañ nga yeggaleel na ko ndax fii kat ay kilifa yu baax rek ñoo fi nekk ndax fii bu ñu ne daaru baaxum gii tey mën nañ ni tuubaakan gii ni daaru Jóob ni kër sëñ Mbay Njaay Gol bi daal ni tawa ni tooro ni siin ak njekki naan ba nga xam ak euh, dima ak dingiraay ak sam-sam ak fi nga xam ne ni mooy tey jii mooy dëkk yi ñu baax ñi ñoo wër mboolem tund wi kon dëkk bi ak réew mi ak mboolem tëli yi képp ko xam defar nga ko mën naa ne defar nga Sénégal. waaw fii nag fii mooy xolub senegal nag. waaw kon li ci des mën nañoo dem ba àgg ca mbooloo ma ak euh, dëkk bi daal biir dëkk bi ñu mën leen cee waxtaan loo xam ne mooy leen ci xam. waaw waaw jërë ngeen sëñ Alaaji ñu lay sant la gërëm. Mm. ndaxte wax dëgg yàlla mel nii daanaka dina àdduna. li ci mën a am lépp daanaka ay média moo ko mën a génne. li nga xam ne tam mooy. mooy li nga xam mooy sababu bëgg-bëgg itam daanaka média koy génne waaw ñun nag dëkk bi amul lu ku nu jàppale waaw waaw dañoo bëgg nag ku nu jàppale bëgg ku nu taxaw ci yoon wi ba lépp loo xam ne nit am na ko man ko fee indi mu jàppandi lool waaw loolu daal ñu ngi koy lancé message Macky Sall mu bëgg bëgg nañ ko nu ci dimbali dëkk baa ngi nii ñoo koy dugg waaw dëkk baa ngi nii ñoo ngi koy dugg waaw maa ngi naan ak sama gars yu baax a baax waaw samay mag samay rak ngi dëkk ci dëkk bi nag dëkk baa ngi nii seen nga ko waaw jël dëkk baa ngi nii waaw képp koo xam ne ni maanaam daan ko doon dégg gisoo ko rek dëkk baa ngi nii waaw bii ngeen di jàkkaaroon nag mooy sëñ góor a baax kër mooy kër sëñ góor a baax li nga xam ne dañu koo tàmbali te yàlla dogal lii ko gis kon képp koo xam maam yaa ngi seetaan vidéo bi te dégg daaru baaxum te bëggan fee indi sa addiya lii ko ne xam ne lif la géey la sëñ Modou Fari baaxum nag moo ko jiite te bëgg nañ képp koo xam ne yàgg ngaa dégg daaru xam ne te bëgg nga ndimbal moo xam ne war nga mën a dem ci daaru wala addiya joo xam ne war nga ko mën a indi ci daaru baaxum kër sëñ góor a baaxum a ngi nii waaw ji nga xam ne moo fekk si woon sëñ Demba Dieng këram a ngi nii. kanam waa jàpp jëmm ji nga xamante ne bii nii woon moom tax ñu naan daaru baaxu. waaw tax ñu naan baaxu mel ak fu baaxu mel yàgg. waaw këram nii. waaw te nit ñi yàlla dogalee ñu jëmmal ko ci mu sanc mu sos ña fa nekk ak njaboot ga fa nekk ñu tàmbali ko kër ñu bari ba dégg daaru baaxam te gisuñu daaru baaxam suñu sarañ lii seen dëkk te xam ne mooy seen addiya ak lu ñu war a mën a jàppale kër gaa nii. waaw ne xam ne ay karo war na lu ne war na fi ay garab ay loo xam ni luy taaral kër ak lépp loo ay fleur la sax suñu sañam suñu borom yàlla dogal ñu indil ñu ko fi képp ko xam am nga doole mën ko fi indi barab baa ngi nii kon buñ ko dogalee ñu daal di egg dox egg ci biir dëkk bi man leen a wan yeneen kër sëriñ si ak njabootuk sëriñ si waaw ki xam ne nag mooy wax ak yéen mooy maanaam ndongal dëkk bi nga xam ni daa féetewoo wax ji da koy jéem rek nag waaw da koy jéem rek waaw da koy jéem rek waaw ki nga xam moo nu ko mën a ci média bu ku ne mën cee jot kooku Alaaji Jëng lañ koy wax. <laughs> mooy rakk ci Ibra Jëng rakk ci Taala Jëng da ah. rakk ci Laay Jëng ah. waaw di rakk bu baax. Ah. yoo xam ne mooy ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. ndax wax dëgg yàlla di ñaan yàlla sa ta yegg ba nga ko fa yeggaleel kooku war na ba tey dëkk baa ngi nii rek ñu ngi nii jublu ci dëkk seen ngeen jàkka jaa ngi nii. jàkka jaa ngi nii seen ko jàkka ji lii mooy jàkka ji jàkka jaa ngi mooy daaru baax jàkka jaa ngi nii ji tam ñu sëñ góor baax moo ko ma fekk sëñ Mourtala na fi sëñ Mourtala Mbacke moom Serigne Touba bi ñu teg xeer wi moo ñëw teg xeer wi ci loolu moom ñi ko fekk ci laa bokk boobu mboolem li ñu tax ak lii ko wër daanaka mbooloo mi fees na ko dell ak ay oto waaw ci loo xam ne maanaam lépp ci barke dëkk bi rek ak dëkk bi bisimilah mën nañu ànd fii ci biir am na mooy kër seen ngeen mbaar mee ngeen di seen ولو تقول علينا بعض القول làq booy xool mooy mbaar bi nga xam ne moom kër sëñ Mor Faasa Baaxu moo nekk nii. eh xool sëñ Mor Faasa Baaxu mu ngi nii. tànk yi ñu gis ngeen leen ñun ñëpp ay tànk. fan la jëm fan la jëm nii. fan la jëm ah kër suñu boole ñoom kër suñu lu fi ñoom ñu fi ah ñii moom dañuy ñibbi toor lañ jëm doon julli dañ doon julli ah waaw ah. ah, ñii nag ay dëkkandoo lañ yoo xam ne toora tàmbali lañ dëkk dañu toor nag dafa doon dëkk boo xam ci biir daaru baaxum ah. gis ngeen ko ni saa yu gis it ñëwee muy korité muy tëbës ñii la ñuy def ak ñoom lépp loo xam ne ni maam lu baax la ñoo ko bokk ndax dëkk bi nga xam mooy toora ñoo sos daaru baaxum njabootu toora nag ñoo nekk nii ñoo yor ànd ak ñoom ak mag ñi nga xam ne ni yàlla na ñu ngi ci biir kër gi jóge fa ñëw fii julli si fii ci sikat ni leen def waaw bis at at mu jot nun ah. dañ ko fee fekk suñu ah. judd nun ñi dañoo fekk dañoo judd fekk magi doora yu jëkk yi di ñëw fii di ànd ak waa daaru doo xam di julli ah. kon tey bu ñu demee ba njaboot gëdi garab ñuy xoolee ndaw ah. suñu xel da ciy dal ñu ngi leen di gudd fan di leen ñaanal wér mag ñëw daan ñëw te mënatu ñoo ñëw ñaan yàlla yàggal leen fi fekk ñu ngi daan ñëw te ñëwatuñu ñu ngi ñaan saa borom yàlla xar leen ci àjjana gën tout tànk ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàlla def leen ay mag ah. def leen mag yu am xéewal ba loo xam ne xañ na naalu waa dëkk bi la ak yàlla suñu borom yàlla yeggal leen ci ñoom ndax Serigne Touba am ñu mën a yegg ci biir kan mën a jël leneen li fi def baaxu ca alaaji. ah man nii xanaa war nañu. kii barab bi wala. waaw. barab baa ngi nii bi xam te ne bii tey mooy mbaar mi nga xam te ma dugg ci biir mbaar mu mag mi nga xam ne moo kër sëñ Mor Faasa Baax borom léppay baax mbaar mii nag mooy mbaar mi nga xam ne nii bu bisu gàmm ñëwee fii la mboolem dajaloo ak mboolem góor ñi jigéen ñi ak mboolem taalibe yi nga xam ne nii fu ne la nit di jóge muy Touba Darou Salaam foo mën a lim rek ci daaru baax ci tund rek ci Sénégal mbaar mi màggal guddi ba asamaan ñu ngi ñaanal mboolem ñi nga xam ne dañ ko daa ànd ak nekkatuñu fi di ñaan ñi nga xam ne ñoo fi nekk itam yàlla suñu borom yàlla ban gën koo mën a def ay ati at maanaam seen xel ku dégg daaw boo xam daal gisoo ko ah. mooy li nga ne mooy li ñu lay wax waaw mbaar mi mooy mbaar xam ne ci la ñuy defee def wàcce ay kaamil. waaw di fi wàcce ay di fi jàngi xasida. waaw pour ñun ñi ak mag ak ndaw ak kilifa yi di fi def. waaw gannaaw bu loolu yooyu itam barab bi nga xam ne nii sëñ Ibrahima ko taaral. nga xam ne ni maanaam mooy taxaw sëñ Ibrahima baax na lii di dégg moom lañ jug nii fa lañ jëm. waaw Dakar bi nga xam ne nii mooy Dakar sëñ Kora Ba bi nga xam ne ak Dakar la woon. garab bu ñu naan ak Dakar. garab boobu moo nii a baaxul suñu mësal góor a baaxul maanaam boo ko jëlee. waaw fal demal. lii nga seen ji. jàng jàng dañ si jàng alxuraan. jàng jàng alxuraan yokkal ko ci xam ne mooy barab. waaw barab bi ci daara la fi. waaw ci daara yi ci barab la taxawal. suñu baaxul yokk si. jëmmi barab bi dëgg jëmmi kanam dëgg naa ne am na gën a kanam bi nekkal. moo ñëw ne def barab bii. waaw daarale ko Dakar fii mooy Dakar aussi Dóor a baax. képp koo xam yaa ngi dégg Daaru ko. waaw la koy wax. ñun bëgg nga teg say bët am yéene da nga xam ne maanaam cofee na ci Daaru Baaxul ñëw di la ko lépp loo xam ne lu àddi ak lépp loo xam ne maam mooy barab bi xaqaam ngi leen di àndaat ak yéen di woon barab yi nga xam ni itam mhm. mooy margo bi nga xam ne ni moom lañ am waaw margo baa ngi nii nga xam ne tey képp koo xam ndax dund dee moo fi nekk te képp koo xam ne yaa ngi liggéey ba wàcc diirub li nga xam ne ni lay defar war a ak war laa jullee. Ah. garab bii fi lan lay taaral. Ah. garab baa bii fi lan lay taaral ci biir kër sëñ Mor Faasa baaxul na waaw ah. jamonoy sëñ Mor eh, jamono ay cinq na ko defal waaye sëñ Mour baaxul doomam bi nga ko doon dogal na ko ci la ko defee nii. waaw ba tey képp koo xam ne am nga wàll ci barab yooyu ci loo xam ne luy taaral barab lay. ak lu ko mën a dimbali. ak lu ko mën a def loo xam ne jamono jamono na rek. mooy moom la ci tàllalaa loxo nit ñi barab laa ah. donc li nga xam ne nag moo koy wax ak yéen ñun ñëpp di ko wax ak yéen bëgg boo xam ne maam am nga loo xam ne war nga ko cee mën a jàppale ngir yàlla rek ak bëgg a barkeelu ci daaru baax mi mi ngi nii ndax lii moom ku ne xam na ni mooy mucc kullu nafsin saa yaxat yi moom ah. barab bi mooy barab bi mucc xanaa mën nañoo fay ba yegg ci kër ga wala wala da ngay fan la कर से ला हाँ। बाय बाय आगु आगु आगु दे हां आगु हाँ, आगु आगु आगु दे हम रे ऊपर आसान से बाहर देखिए बाहर भले भले हम कैसे मरे हां हां मुझे लाल waaw microcentral baa ngi nii tey suñ taala dañoo bëgg a wane dëkk bi ndax bari na ñuy dégg daaru baaxum te xamuñu ko te gisuñu ko yëpp nag waaye dañ cee bëgg dañ leen cee bëgg a wan li ñu man waaw ndax ñi ko doon dégg te gisuñu ko ñu man cee teg seen i bët am yéene ak it maanaam bëgg amante poids dëkk bi kóllëre ñu leen koy wan ba buñ tuddee daaru baaxum ñu xam ne dëkk bi la tey mooy fii waaw bisimilah buntu kër baa ngi loolu moo dugg ci kër gi. mooy kër bi nag dañ ko fekk muy waxtaan waaye dañoo. waaw nan def da nga dañ dem rek jox ko micro bi. dañ dem rek jox ko micro bi dégg ci biir bi yëpp a di toog ndax dañoo ñëw toog sëñ mun toog maa ngi kepp ay dàllam nii lii ñëpp ñu toog ma daal def nii sëñ mun di ñaan am ndaw su ñëw mu daal jël ñetti ñetti ñetti jéego jigéen ñetti loxo jigéen teg ko ci kaw loxo suñu seen ndaw suñu ah man ne maam su ma sañoon jigéen warut a jël ay loxo di ko teg ci kaw kaw loxo kii mu ñuy baaxul doo mu leen sant ay ay ay taalibe doo ma daal jóg sa bopp suñ mor sa faas sa bàyyi bàyyam moom melul kii ak ñaanam yow mi koy sàkku sax yaa ko def kii mënta ñaan loo sax kii ku bon la ci biir mbooloo gaa yëpp a ngi topp ba ma génnee oto bi bi ma sëñ bi nee dawal barke sëñ Mor Fass bay tàmbali la mujj wane kaay yóbbul ma oto mënu ko dawal ndax aw tàngaay loolu la ko waral mooy nit day xam la mu am waaye fii am na suñ Mor wax fi jéem a defar ba defaroo waaye des na fi jéem a yàq ba yàqoo daana wax ne dëkkub dondante du dëkkub dondante dëkkub toppante la ak nangu ku nangu da nga cëw walla ku lexal daaru nag maanaam ay jàll amu waaye kenn jaaxlewu fi daal man nag ñu bare ngi critiquer li ma nekk mooy toogaay bi lu tax doo dem Ndakaaru lu tax doo dem barab sàngam fii ma toog nii bu ma yàlla sama mbir kenn gaaw ci sa place fii ma toog nii lépp ak ma fi fekk te jóguma génnuma dem ma fenn lu waaye am na jàpp ne boo boo ko téyee moom laaj du avance teel man moom lii mu am nii suñ borom ma ko fàggul ak jëmm ju génn fii muy suñ moom àdduna bépp su ma doon sant day sant yàlla bu pare doog a sant sama waajur waaye bu may sant waajur doog a sant keneen loolu rek laay sant yàlla. suñ aboo mee nag li mu doon doon caatum sëñ bi nga xam moo ci gën a néewi ma ko woo téléphone diisoo moom dana ma wax loo xam ne de danaa jëlaat sa àll war a xasaat ko nii bindaat ndax maa am léeg-léeg mu egg foo xam ne la may nar a jëf moom man na maa détourné ba demaat fànne ko loolu nag bu ma du woon diisoo ak ñoom du ma ko am na ko ne ma suñu moor li muy baax baax danaan diisoo waaye bu ma diisoo pour ma leer na suñu mut dalaa bawoon de te ñu mbawoon ñëpp na ma waaw bu a ñëwee ñu waaw kay loolu lañ bu ma juumee man ma juum lool ndax ma def kon bu ma juumee ka ma diisul moo ma juumloo ku bu ma juumee nag mën naa ni diwoo ma juumloo waaye nag kooka du ma ko loo wante yéen ñii jarul ngeen di jóg di wuti di fekk lépp da leen di fekk nga laltaayoo muy sa laltaayu ba nga fab toora def ko sëmb mu ngi kiiraay waat naa ci yàlla ni dara bii lu xew yàllaa ko dogal waat dara bii man naa ko waat yàlla te loolu ma di leen xamal itam nag ni jaamu yàlla ci seen way bi ñu def ci dëkk bii waat naa ci yàlla ni doy na doy na leen doy na leen barke la sëñ maam Thierno waxal fa koso sëñ Modou Bakhoum mën na ko wax maam Thierno ba muy génne koso di dem daal dafa génn ba ma mu yëkkati loxoom teg ko ca sëng ni dëkk bii jaamu naa fi yàlla lu defar juróom-yaari addina yu yàqu waaye waat naa ci yàlla ni sa baay defar na fi lu mat juróom-yaari daru yu yàqu daal yi ñaan daal ñëpp am jàmm rek waaw te am sa saa yëfatal moot waaye barke moom res na ko fi am res na koy liggéey lu ñëw yàlla na yàlla dimbali rek saa ñu bàyyi ko daal yàlla na yomb waaw barke alxuraan boole waat rek dañoo bëgg mu gën a génn daaru ku ko doon dégg ku ne te xamoo ko ñu won la ci liñ la ci mën a won barab bi nga xam mooy bi ñu nekk mooy kër sëñ Mor Fass Bakhoum kii nga xam ne ni mooy sëñ Abdoulaye tey toog mooy doomi sëñ Modou Bakhoum ji mu fi bàyyi ju ñi nga xam ne ñoo fi des ay rakkam lañu di sëñ laat ma Xaadim ak i rakkam kon mën naa ne ku tudd sëñ laa tudd sëñ xaalim rek yéen ñeen ñëpp ci des yéen mu baax ginnaaw loolu ñii nag ñooy suñu bàyyi tànn bàyyi bàcce ngi nii toor a dëkk ak bàyyi baaramee ak mboolem jabatu ñu ngi nii nga xam ne ak mbay gay ñu rek ñu ngi nii tey mag ñeeg ndaw ñi xam ñooy dëkk bi itam suñu mag Ibrahima nga nee toog ak rakam ak ba góor a mii di bàyyi ci moom di mag ci moom ak góoram mu ndaw mële ak Baye Faasa ñu ngi fi di ay kilifa ci ñoom waaye Ibrahima it sunum xel dalal na ko ci ngemme ndax li tax ma di ko wax it sunu kilifa bu baax nga dafa daan wax te xema mu na woon lool bu tiimee ndaw ni wollil may rajo xema mu na woon lool lu muy dugg ni wollil may rajo xema mu na lool lu muy dugg ni wollil may rajo ba ci bàyyi bii mu fi bàyyi tey dégg ngeen tey li nga xam ne Baye Bass wax na ko ci jullikaay bi lépp loo xam ne li ñu tëggee koy joxe nañ ko jox yëpp rajo mbaa mu jox ma ko kon ñëpp nag ñu ngi lay ñaanal yooyu itam yaag sa kilifa yi ak sa rakk yi ak ñun ñii di seen ci dëkk bi ak kilifa yi xam ne ñoom la fi njaboot yi ñu ngi ñaan ci yàlla yoon kër Serigne Touba dëkk bi yàlla saa borom yàlla jëme kanam fii nag mooy kër Serigne koo xam yaa ngi ko doon dégg gisoo ko luñ la ci mën a woon rek fépp koo xam ne vidéo bi yegg na fa rek xamal ni fii la kon jërëjëf jëf yàlla yàlla may gudd fan damay ñu barke Cheikh te nag mooy alaaji alaaji jëng mooy rak ci Ibra Jëng rak la ci Ibra Jëng ak laay jëng bee waaw ak taala ñu ngi nii waaw alaaji moom yéen la mu def war na ko moom ak dëkk dëkku maamam lay feeñal yow da ngay feeñal sa dëkku maam loo ci def ndax mu jëngale ji mu jàng moo jënga ko ji Mor Dieng sëñ Demba ko bi sëñ bu la sëñ Gora baaxum fekk si war bi ba mu yëkkati xilaafa bi jox ko kon yow loo defar duñ na yaatu jërëjëf jërëjëf kon nag di tàllal loxo yi

ah. kon yow waaw ñu bokk ñëpp waaw ñaanal na rek daal ba xam TV bi waaw daal ba xam TV la. waaw jërëjëf daal ba xam TV. jërëjëf waaw. waaw. waaw. demandé jox ko micro bi alors ah dañu ne daal yëpp la ñuy def kon da nga koy doon ñu dem ba assuré doon na. da ngay dugg kon doo def. waaye yow looy yóbbu. Alaaji. waaw ah, Baye Dia. ana Ndakaaru. maa ngi fa Baye Dia alhamdulilah. alhamdulilah. Baye Dia gëj a gisee. waaw gëj a ah, gisee. alhamdulilah. taarakallah Baye Dia. waaw. <laughs> Ah. maa ngi siyaar bu baax. maa ngi man daa tàng waaye ma man ma ba bàyyi ci dara baaxum tiwi la tudd daani dara baaxum tiwi la dara ma tiwi waaw moom moom liggéey ba mu toll daara ji moom sëdd ah fa ngay liggéey waaw nga sant yàlla waaw fan am na yaa parce que sang baaw ah waaw sang baaw fekk naa la fa place laaj nga nekk ci bii yëngu nag léegi ah nga nekk ci boobu yëngu léegi. waaw dama ko kii yàlla de ma ko ci boole bu yaatal rek waaw. macha allah waaye ñu ngi lay waaw ah. loolu la. sant rek am na ah, fi moo gën a kii léegi añ bi pare de. léegi añ bi pare de. ana laat ah, am mi ko rey. ko ko oto bi. ana lan. kan koo ko jox koo ko jox alaaji pare pare na <laughs> affaire bi pare na fii nii coupé nañ ko. ayow. Ah, ah? loo loo loo wax nga ni. ah laay mu ndaw. lan la loo ko jox. du kële. waaw ah, xam naa ko ñoom kii la nga oto. waaw. doo yor mën a kii bi. kon ñu ngi seen réew mi booy bu nga yor doo yor dëkk bi. laat. est que tuddul laat yaakaar naa laat la tudd sax de kii yaa nga ne ni ko ne daa mel ni xawma kii ko yor. waaw mu la xawma taala. waaw ni ah. ma dem bay. daam del julli ji. woor ba koor gi jeex te julli ji woo. li ko war yow Mbaye Ndiaye sax tey ñëw na ci ci jullikaay ba. loolu xam nga ne desab soxla ci yow Mbaye. mbay sax ñëw na man maa ko laa ne ay waay bari na mbay julli si na waaw julli naa ci kër gi waaw man mi suñu jàmm naa julli naa ci kër gi wa daa xam ci kii la koy ci daam la koy posé waaw daam séeri mi ngi nii toog ane ah, ko maam fu bàyyi non as ndoomam alaaji fi mu nii lu wax ji bari bari nga dëpp ma sa affaire sama jaal bi rek nga bëgg woon bi jaay